responsable politique ci euh, euh, APR euh, Fatou Sané li bëgg d'abord moo ko présenté wu Euh, salaamaaleykum euh, cher internaute salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum aussi waa Sénégal euh, maa ngi tudd Fatou Sané nekk militante dans l'APR di aussi tamit présidente des Sœurs Unies républicaines. voilà très bien Fatou tey nga nekk kenn ci way politique yi nga xamante ne yéen nekk fii ci biir Thiès ñu bëri nga wax ñun daanañ gis Fatou Sané ci lu bëri ci wàllu social fii ci biir Thiès. activité yu bëri di am muy fin d'année muy korité muy ko muy tabaski également ouverture euh, rentrée des classes yëpp dañ daan gis farsaane ñu taxaw accompagner yenn ci ay couches vulnérables li ni mel tey ñu bëgg nga wax ñu euh, taxawaay boobu fan nga ci tool waaw Omar maa ngi lay nuyu di la remercier bu baax ci invitation bi nga xamante ne nii jagleel nga ñu ko euh, damay wax ni man Fatou Sané ku ma xam xam ma ci volet social Euh, ku ma xam xam ne euh, yitte askan bi rek ci lay dox te ki nga xamante ne nii moom la àndal di ko liggéeyal muy son excellence monsieur de président de la république Macky Sall euh, social rek moo ko tax a jóg nit la koo xamante ne nii askan bi moo ko tax a jóg kon ñun bu ñu nekkee ay ndaw ne dañ koy jàppale ci liggéey boobu li ñu war rek mooy jëmale suñu liggéey ci wàllu social moo tax lépp loo xamante ne nii rek événement la bu am ñun dañ ci jug taxaw ci eh, jéem ci liggéey liggéey bu am solo boo xamante ne nii askan bi dinañ ci mën a gis seen bopp loolu rek moo moo waral à tout moment lu xew rek incha allahu rabbi comme niñ ko yàgga defee dañuy continuer di ko def di jàppale askan bi ci li ñu mën bu neexee yàlla. Eh, voilà très bien ren ñu def tabaski ci contexte Covid 19 euh, taxawaay bi ngeen ci amoon. waaw tabaski bi euh, Omar gis nga ko euh, nekkoon na tabaski boo xamante ne nii aussi tamit. tabaski bi la bu mel ne comme yi fi daawul am mais sant yàlla rek ndax ku nekk xam na ne euh, mille 2020 ba léegi Sénégal ñu ngi dund mbas mi waaye yàlla baax na lépp loo xamante ne nii rek euh, def nañ ko euh, dañoo ko defoon pour jàppale askan bi ndaxte gisoon nañu ne xawoon na metti bu baax a baax a baax waaye sant yàlla rek ba ñi nga xamante ne nii yàlla dogal na suñu wërsëg nekkoon ci ñoom Euh, jàppale nañ leen ci tabaski bu baax comme niñ ko daan def année yi passé am benn fait également boo xam ne am na fi bi ñu inauguré ISEP le 29 euh, bi weesu euh, ñu gis président Macky ci biir caravane bi mu def di dugg si ci biir Thiès invité la ci otom mu nekk fee boo xamante ne ku amul yenn procès ci wàllu politique li ñu defe naa doo ko am. waaw loolu aussi tamit damay wax sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ndax dafa neex. loolu dama naan euh, président de la république Macky Sall daf ma sagal foofu dama koy remercier waat encore une fois ndax ndaxte keroog euh, li ma defal Thiès mën naa ne bu fi yemoon sax neex na ndaxte di ànd ak nit di ko liggéeyal mu fekk la ba sa biir dëkk sagal la ci sa ay biir biiri nawle loolu ñun amuñu loo xamante ne nii war nañ koo mën a mën a mën a mën a mën a nattable cër bi nga xamante ne nii keroog président de la république defal nañu ko waaye nag euh, lépp loo gis rek dafa am lu ko waral xëy na nag dañu nekk ci biir parti euh, yàlla mooy séddale yàlla mooy joxe yoruñu ci nombal tànk amuñu benn poste de responsabilité boo xamante ne nii euh, war nañoo mën a permettre ñu àgg fenn fi waaye dañoo dugg ci parti bi ak jom dañoo dugg ci parti bi ak fulla dañoo dugg ci parti bi ak gëm-gëm dama yaakaar ne nag conviction bi nga xamante ne nii dañu ko am engagement boobu noonu keroog moom lañu président de la république fay biir Thiès ñu ko ciy sant di ko gërëm euh, di ko ñaanal aussi tamit euh, fi nga xamante ne nii foofu la bëgg a àgg yàlla àggale ko fa vraiment amuñu fayam ndax keroog euh, daf ma sagal daal daf ma sagal daf ma sagal ci sama ay biir biiri nawle daf ma sagal ci sama ay biiru mbokk kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko remercier mais également bu ñuy wax euh, Fatou Sané dañuy wax première dame Marième Faye Sall. waaw kaaw <laughs> Omar foofu moom euh, danga ma laal danga ma laal ndaxte euh, elle est la maman de la nation mu nekk nit koo xamante ne nii nitu social la te ñun li ñu liyee sax yaakaar naa ne ñu bari xamuñu ko dafa dafa weesu politique parce que nekk na nit koo xamante ne nii mën naa ne li ñuy def lu ci ëpp daanaka moom la ndaxte euh, mi ñuy dimbali ci suñu wàll euh, politique di ñu dimbali aussi tamit ci wàllu volet sociale yi ñuy def ndax lii feeñ nag moom la nit ñi di gis mais li nga xamante ne nii mu ngi koy def ci suuf te nit ñi yëguñu ko mu ngi koy def ci suuf di ko def te yàlla tax yaakaar naa ne loolu moo ëpp fuuf li nga xamante ne nii nit ñi ñu ngi koy gis kon la maman de la nation mi madame la première dame Marème Faye Sall Euh, man Thiès ku ma xam xam ne sama lépp moom la ndaxte dama ko bëgg di ko sagoo di ko tiitaroo ndax dafa nekk nit koo xamante ne nii euh, mi ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax ci wàllu social bi nga xamante ne nii ñu ngi koy def ci doomu aadama yi kon ñu ngi koy sant moom aussi tamit di ko ñaanal ci taxaw bi nga xamante ne nii taxaw na ko ci wetu boroom këram yàlla may ko ci ndam incha allahu rabbi euh, voilà beneen wàll bi mooy tey bu ñuy wax. gouvernement bi nga xamante ne mooy ma ci Sall bi euh, ministre yi bëri na ñoo xam ne ñu ngi wax ni dañu tëlee woon dañu am ay jafe-jafe euh, tey yow boo doon def jàngat ak taxawaay bi nga xamante ne tey gis nga ko euh, lan koy kii. waaw foofu aussi tamit duñu wax duñu wax ne lépp mën nañ ne jaar na yoon ñoom ñëpp nag ñu ngi liggéey. mais bu ñu sañoon aussi tamit am na ci ñenn ñoo xamante ne nii ci li ñu nekk ñu yokk ko ndaxte nag euh, dëgg la yàlla bëgg président Macky Sall liggéey rek la xam te liggéey rek moo ko tax a jóg kon dañuy ñaan ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci gouvernement bi képp koo xamante ne nii président Macky Sall dafa am ci yow confiance ndax président Macky Sall du yëkkati nombal tànk di ko jox koo xamante ne nii mënul du yëkkati nombal tànk di ko jox koo xamante ne nii amul capacité bi mais dañ leen di ñaan di leen ñaax ñu gën a baral ndax président Macky Sall dafa woote baral euh, ci loolu noonu damay jël exemple ci ki nga xamante ne nii mooy le ministre de l' intérieur di monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome euh, bii nii mooy première expérience am ci li nga xamante ne nii mooy wàllu gouvernement mais ku ko gis gis ni muy liggéeyee gis ne am na taxawaay boo xamante ne nii wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo la ci li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu euh, askanu Sénégal ak yi nga xamante ne nii mooy jëmale aussi tamit liggéeyu gouvernement bi kanam kon ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu gën a góor góorgóorlu gën a laxasaayu gën a liggéey pour jàppale son excellence le président Macky Sall ci fi nga xamante ne nii foofu la bëgg a àggale li nga xamante ne nii mooy liggéeyam bi di leen félicité nag bu baax parce que ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu mais nag bu ñu dollee gën koo baral ñu jël ndax président Macky Sall liggéey rek la xam te liggéey rek la la la wootee

waaw li nga xamante ne nii nag moo jëm ci révision liste électorale yi man damay naan du loo xamante ne nii décision la boo APR jël wala Benno Bokk Yaakaar jël décision la boo xamante ne nii dañ koo dañ ko tënk ci li nga xamante ne nii mooy dialogue politique bi euh, ci dialogue politique boobu noonu nag parti yëpp a ngi fa woon ñëpp a ngi fa woon kon yaakaar naa ne foofu li nga xamante ne nii tënk nañ ko fa intérêt population sénégalais yëpp la li nga xamante ne nii wax nañ ko fa ak décision yi nga xamante ne nii jël nañ ko fa ñoom waa dialogue bi yépp ñoom ñoo àndandoo jël ko kon yaakaar naa ne foofu noonu lépp loo xamante ne ni nit ñaa ngi koy wax naan dañu bañ climat-votant yi voté wala dara euh, man damay naan rek euh, lépp loo xamante ne nii décision la dañ ko jël foofu noonu dialogue politique bi moo ko jël kon dañuy àndandoo rek ñun ñëpp liggéey ci li nga xamante ne nii moo jëm ci liste yi euh, ñi nga xamante ne nii aussi tamit inscrire guñu ñu fexe nuñ leen inscrire ñun ñi nga xamante ne ni nag ndaxte ku ci nekk da ngay ñaan Euh, ci parti bi nga bokk fexe ba nga xamante ne nii ndam li fa la mën a féete te li ñuy may ndam nag mooy ñun ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ay ndaw nekk ci parti bi ñu jóg wax ak suñu ay militant wax ak suñu ay mbokk wax ak suñu ay xarit ak suñu ay am di jàmm suñu ay dëkkandoo képp koo xamante ne nii rek inscrire go ci liste électorale yooyu ñu fexe la dem inscrire ëllëg nga mën a voter ñun ñu mën a am majorité incha allahu rabbi alors euh, fii ci biir euh, Thiès Nord ku mel ni Birame Souleye Diop nekk coordonnateur bu parti PASTEF au niveau départemental mais également di candidat wu euh, commune bu Thiès Nord tey di candidat ci commune bu Thiès Nord je m'excuse tey yëkkati na ay kaddu ne gis na ni tey certificat de résidence bi ñu war délivré à la mairie mairie bi tëj na ndax mbas mi tëj na état civil mu nekk loo xam ne ne jafe-jafe la boo xam ne day wane rek njuuj jaaj ngeen di waajal. man wax biram duma ci wax ndax ki nga xamante ne nii moom moo ko jiitee nekk kilifaam ku nekk xam na ko duñu ay waxkatu dëgg kon ñoom li ñuy wax man yaakaar naa ne dama naan waxu kasaw kasaw la ndaxte mbas mi c'est bien vrai que mi ngi fi mais nit ñi aussi tamit ñu ngi dem di wuti ci ay résidence kon bu ñu ñëwee taxaw naan mairie bi dañ ko tëj dañuy wut njuuj njaaj man damay naan ñoom ci li ñu nekk yàgg ci nekk ci loolu la bëgg a nekk ñun nag taluñu nekk di wax ak ay détails ci ñoo xamante ne ni wax lu dul dëgg mooy seen métier ñun dañu am beneen jot boo xamante ne nii dañ ko fas yéenee jël jagleel ko li nga xamante ne nii mooy liggéey bi ñu fas yéenee dem liggéey yi ko mooy inscrire nit ñi jàppale leen ñu am seen ay kart ba ëllëg ñu mën a voter moom candidat la ñu ngi koy xaar incha allahu rabbi ci biir loolu rek la ñuy reprendre maanaam ci wàllu euh, toujours inscription yi liste yi euh, ñu gis ni Thiès bëri na ay candidat yu déclaré rawatina commune bu Thiès Nord am na sax candidat bu ci jóg ne moom inscrire na gum 600 personnes ci liste yi te defe naa ni commission yi nga xamante ne ñoo fi nekk bi ñu leen implanté léegi samedi léegi defe naa ni li fa bindu euh, fii ci commune bu Thiès Nord defe naa ni eggagul 100 soo ko yeggee it démb la wala barki démb. waaw Omar comme ni ma koy rek ñun bu ñu nee dañu gëm président Macky Sall. di ko liggéeyal lu ñu ko bëgg-bëgg nañuy teg mbir mi ci yoon ndax liste yi mënul ubbi le 31 euh, man je pense que le premier xawma le deux laa gis benn responsable wax ko dama ko gis nag duma tudd turu kenn mais man maa ko gis mu ne inscrire na 600 personnes mais déglu président Macky Sall mais ku jug ne candidat laa ku ne candidat laa ci benn maire yi loolu teguñu ko fenn ku nekk nag sañ nga am sa ay ambition mais nag ñu teg ko ci yoon naxe bi moo fi war a jeex ñu jug dem def fulla ak fayda inscrire nit ñi continuer liggéey bi mais toog woo sa ay journaliste inscrire naa lii inscrire naa inscrire naa lii man pour man amul sens ñun li ñu tax a jóg mooy dem soññ nit ñi ñu inscrire parce que loolu mooy farata wax ci ay télé wax ci ay rajo du farata lii farata mooy nga jug def fulla def fayda génn nit ñi ñu dem inscrire mais toog ci sa ay bureau wala toog ci sa ay néeg naan inscrire naa 100 personnes 200 personnes amul sens. Euh, très bien kàddu gu mujj gi ginnaaw loolu boo koy tëjee. Euh, fi may tëjee sama kàddu gu mujj mooy di sant di gërëm. di ñaanal ñi nga xamante ne nii ñoom laa àndal di liggéey ndaxte bii nga xamante ne nii liste yi ubbi na ba tey chaque jour que jëfee ñoo dugg di xool ñi nga xamante ne nii war nañ leen a inscrire ñu ciy dox di ci wax di leen ji lijjantil pour ñu mën a dem inscrire euh, beneen chose bi aussi tamit kaaw euh, mooy li nga xamante ne nii moo am Thiès euh, bu ñu nee dañuy politique nekk ay ndaw dañu war a waxante dëgg joxante loxo damay ñaan sama mbokk politiciens yi nekk Thiès ñu joxante loxo bàyyi xiiroo bi bàyyi ñaayoo bi naam bareetul du ma ne amul mais bareetul mais nanga ko yokk te xam ne ñun ñëpp benn leader la ñu am muy président Macky Sall te ki nga xamante ne ni moom la ñuy àndal muy président Macky Sall jàmm la woote ndax bëgg jàmm moo tax mu ne dafay def ko pour ñëpp ànd liggéey pour li nga xamante ne ni mooy intérêt Sénégal pourquoi pas ñun ñi nga xamante ne ni Thiès aussi tamit ñu aw ci tànk président Macky Sall yooyu liggéeyal ko jàppale ko joxante loxo jël lépp këral yeeg yépp teg ko ci suuf liggéey pour intéret li nga xamante ne nii mooy population Thiès maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la remercier yow aussi tamit ci sa invitation di la ñaanal suñu borom aussi tamit ndam lu kawe kawe kawe kawe ci sa liggéey yàlla dem ba site bi nekk télé bi nga xamante ne nii moom la ñuy suivre partout ndax yow. suñu ay début ba tey ñun ak yow la kon yaakaar naa ne xam nga ñu bu baax ñun aussi tamit xam nañu la ci sa li nga xamante ne ni moom ngay def dañ lay ñaanal rek yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla aussi tamit mbas mi nga xamante ne ni suñu borom moo ko fi teg mu dindil ñu ko di soññe aussi tamit bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne nii mooy mesure barrière yi nga xamante ne ni ñu yor wàllu personnel santé bi moom lañu sant ñu ciy dox incha allahu rabbi thank you